waaw ba tey gars yi ah, gis nga lépp si préparation korité bi ah ñu ñëw xool si ñi nga xamante ne ni ñoom ñooy jaay seen ndawal xam nga ku ne ku ne korité ne ginaar waaye aussi tamit ne ndawal ndawal lu baax li boo ko bëggee fii ngay ñëw ah señ bi na nga def. ñooy siyaar naaj. naaj jàmba. waaw ñooy sant bu baax. xam instant bi nan ngeen dundee préparation korité bi. waaw ah, préparation korité bi ñu ngi ko dundee nag comme instant bi moom affaire day raam nag doxagul nag ndax nit ñi xam naa ni ci xale yi lay nekk yooyu quoi mais ci yàpp bi moom xam naa ni ak ginaar yi dañuy raamagul rek mais ñëwaguñu quoi xam naa féex nag suba wala gannaaw suba ñu commencé ñëw jënd si quoi. mais instant yi ndawal du manqué ndawal waaw moom moom dafa cher quoi nag yi moom instant yi kenn mënu leen a jënd ndax da jënd sa xaalis di dem di sànni sa xaalis moo tax fi mu dina cher ndax boo oytul yàpp day àgg kilo 4500 yàpp xar bi day àgg 5000 yàpp nag bi àgg ndax fi mu toll ñoo cher quoi problème Mali bi frontière yi ñu tëjox yooyu noonu quoi waaw noonu la demee. vraiment si li ngeen di yëngatu si indi na jafe-jafe bu bëree bëri ndax boo seetloo maanaam euh, prix bi nga daan jëndee ci nag yi ah léegi bi ñu ci teg dafa bari tey nag bu exemple boo daan jëndee 500000 instant ñoo ngi koy jaay 600000 kon kon problème day daal di ñëw quoi. waaw instant bi ñun gis ñu suñu bopp nañ koy liggéey parce que woo ñu lii lañ mën a def moo tax ñu ko ñu di koy def quoi mais gis ñu ci suñu bopp sax mais dañuy xëy si ñëw taxaw def li ñu war a def quoi après ñu xool après li des yàlla baax na quoi. papa na nga def. maa ngi lay ziar xalifa. yaa ngi maa ngi sant yàlla bu baax. tey jii lan moo doon sa gis gi si préparation Korité gi ak yàpp bi jamono jii nii ni mu chéré ak clients yi tamit xaalis tamit amul ana ban jàngat nga si am loolu. waa ginnaaw bi ñu sant yàlla julli ci yonent bi ñu ngi nuyu mbokki Sénégal nuyu mbokki Tëngéej parce que Tëngéej fii lañ dëkk ci marché Tëngéej bi fii la ñuy yeewoo fi la ñuy daane suñu doole chaque jour. mais Khalifa loolu boo ma ci laajee dinaa ci mën a tontu parce doomu aadama yi. ñun ay doomu aadama lañ kilo yàpp 2000 francs la daan jar bu ñu demee ba kilo yàpp di jar 3800 francs ou 4000 francs loolu xam nga ne métti na population bi ñu ngi souffrir barke Seydina Mohamed ginaar yokku na 4000 francs benn ginaar kilo yàpp 3800 francs yàpp nag kilo yàpp xar 4500 francs 5000 francs mais loolu ça c'est trop loolu nag li ko waral mooy suñu président bi Macky Sall yaa may dégg moo cuune parce que lu tax moo cuune mooy que ni lu yoonam nekkul rek lay dugg lan la mën a jëlee frontière euh, bi nga xamante ne moom ñoo ñuy jox bétail nag ak xar muy Mali mu tajal ñu frontière bi loolu moo tax Sénégal di souffrir ñun sonn nañ barke Seydina Mohamed tant que frontière bu ubbeekuwul waxuma lay yàpp mais dinañ lekk ay xeer parce que lii fi nekk nii non dafa métti. ñun sonn nañu vraiment sonn nañ population bi ñu ngi souffrir barke Seydina Mohamed Macky Sall nañu dimbale mu ubbi frontière Mali bi nag yi dugg si waat xar yi dugg si waat yàpp wàññeeku waat bay jar kilo 2800 wala 2500 sax mais 3800 ah nag boo dem jënd nag yi ñu ngi leen di dem jënd ay 800000 850000 900000 nag boo jënd mu perte nag boo jënd mu bàyyi fukki junneeg juróom avant koy tekki taabal mais ñun sonn nañ ñu ngi souffrir nañu dimbali Macky Sall mooy suñu président waaye nañu dimbali. te bu ñu na na fexe fexe fexe ba élection yu ñëw yaa may dégg baali ma la mu xam ne day paas parce que ñun sonn nañ ci moom na paas yeewi ñëw ñu xool lan lay saf yeewee ko yor du waxi politicien de man politique wu ma Macky Sall laa mës a faral mooy sama mooy sama toma mooy sama nuroowaale mooy sama lépp mais dañoo sonn ci Macky Sall lu ñu bëggul la ñuy dugal lu ñu waay lu ñu lu ñu bëgg rek mooy mu dimbali ñu ubbi frontières yi nit ñi am am affaire yi dama a ñëw wala loolu da laa gis xalifa lu leer papa ah kontaan nañ papa noonu la demee nag ok merci beaucoup waaw ñu ngi leen di sant di leen gërëm di leen wax ni seen ñëwu tey bi mhm. yaa may dégg ñu ngi leen ciy gërëm di leen ci sant yéen waa Rio Plus parce que nag télé bu nekkee ci ab dëkk lii la ñuy lii lay jëriñ dëkk bi bu événement ñëwee mu dugg ci marché bi xool population bi lan la ñuy dund comprendre rang ñun sant nañ leen gërëm leen yéen waa Rio Plus yàlla na seen jàmm yàgg jërë ngeen jëf ok waaw ba tey ah, ñu nekk fii si marché yàpp ah. papa na nga def. maa ngi fi. maa ngi am ba. maa sant yàlla bu baax. ana nag ngeen dundee préparation Korité bi instant bi nii. ah nin ko daan dunde rek waaye ren moom booy dafa gën a metti de. yàpp seer na ginaar amul xar amul nag amul ñun fi mu nekk danoo nekk ci lu metti depuis kii bi nu mu tuddati bi ñu tëjee frontière ba léegi danoo sonn barke yonent bi ci la yàpp lii muy jar ay 4000 francs ñun la gën a metti am na ñoo xam ni dépasse junni moom la ñu yor kooku est-ce que dinañ mën a ñëw jënd ci kilo yàpp lu ñuy dese fu ñu jëlee soble ak ceeb ak yooyu booy réew mi tas na boo bëggee dégg dëgg ah sonn na ñoo gën a sonn ñëpp barke yàlla loolu rek laa ci xam lu ma ciy wax. instant bii nii ba client yi ñoom ñu ngi ñëw di jënd si. mais nu ñëw ba daan ñëwee heure bi daan fekk bu desee cinq jours ñuy ñëw ñii naan jaay ma dix kilos jaay ma nangami kilo ñuy téye. tëngéej mënatuloo lekk léegi juróomi nag booy dëkk bu day ni tëngéej juróomi nag mënatu koo lekk xoola marché bi ni mel xoolal doo gis benn client bu taxaw. Hmm? daana dàq ah. daana gën a neexit sonn nañ trop waaw. très bien merci. gën a xam bi lan ngeen di dund jamono ji ñu toll nii ak préparation fête Korité bi. waaw doy waar rek oui doy waar ah parce que moom la waxtaanee sama benn mbokk buuse léegi. te yàpp bi instant yii toll nii doy na waar doy waar goo xam kenn comprendre lul quoi ndax ay 500000 fu mu toll nii boo dee na nga koy jëndee 600 et quelque yàpp bi cher yàpp bi fu mu toll nii kilo kilo 4000 francs métti na quoi métti trop métti si ñun métti tamit si nga xamante ni clients la quoi parce que clients yi bëgg nañ quoi mais day cher parce que imagine 4000 francs kër guy génn fi mu toll nii dépasse 5000 francs loo koy toggee ñii bëgg nañ tamit boo ooree bu ngoon jot da ngay lekk lu baax sa def ko sa biir quoi surtout yàpp koor da daan dox mais ren koor yàpp ku ne xam na doxul parce que dafa cher dëkk bi amul xaay lépp yokku ndoo cher loolu dañ si war a mën a jàpp quoi état dañ si war a mën a jàpp bu baax ci côté boobu noonu li war a loolu yëpp Mali Mali bi tamit si la tëj frontière yi nii amul benn sens nañ tëj frontière yi ñu liggéey waaw bu mu xool intérêt que essantol am ren nii si ko wax te muy lépp a cher meew suukar ceeb lépp a yokku daal dafa metti quoi nañ dañ ci jàpp daal. voilà mën naa ne daal li waral lii yëpp mën naa ne frontière bi ñu tëj la en même temps ak dëkk bi nu mu méttee. waaw waaw frontière bi ñu tëj da si joué Mali Mali bi ni da si joué parce que nag yi ay Mali lañ jógee Sénégal fi nañu wax dëgg fi amul nag Sénégal amul nag Mali yi Mali le Mali saa bu ñu amee problème boucher yëkk clients yi yëkk parce que day seer nag yëpp fa la ñuy jógee ak xar yeeg yëpp presque Mali la ñuy jógee kon donc war a gën a yaatal affaire yi ñuy ñëw Mali Mali bi dafa war a dox dañu war a ubbi frontières yi liggéey bi neex wóor na yàlla nag bii nii ay jamono ay 500000 laa koy jëndee mais instant 600000 francs laa koy jëndee ak quelque 620 la jar te imagine ñu taxi 120000 francs léegi boo ñëwee jaay clients yi clients yi des fois da ngay da nga leen di jaay sax des fois da lay mere mais client bi dañ gedd bem yaakaar ne yow yaa yokk yàbbi wala fekk na yow la ngay daj yow yaa ko xam damay rey nag wóor na rey nag peut être jaayee goo ko imagine loolu métti na nañu waxante dëgg billaay dafa métti barki Seydina état moom lu si mën a gën a jàpp da war a mën a gën a jàpp quoi dawal ñu yërmande te ñun xam nga dañuy liggéey quoi waaw ah, borom kër guy xëy di génne junni barki Seydina wax nga dépense mais dépense boo génnee junni ah bëgg jënd kilo yàpp 4000 francs loo koy toggee xaaral ngay jënd 4000 francs pare ngeen lekk noonu dañu waxante dëgg dafa métti jamono ay kilo yàpp 2500 état daal lu ñu mën a gën a jàppale ci loolu ci dund bi parce que moom la fi yàlla teg moo yor wàllum loolu moom la ñuy jox duut baaraam yaa ngi comprendre lu mu mën a jàpp ci dund gi gën a yomb askan bi gis seen bopp na def loolu quoi te xam ne ñun loolu lañ ko fale woon a ñun sénégalais ñun amuñu benn problème ku ne na ni sénégalais jàmbaar lañ barki Seydina booy ay ay gëree lañ jàmbaar lañ gisu leen jàppale waaw état bu fi mën di ñëw tam mbew sa gis ay booy ñu yor ay yoo xamante ne ay bagage yoo seen loxo boo dee seet ay kilifa du ma sax 3000 francs sama yaram day daw barke Seydina ñu toog ci terrain bi di liggéey damay xam ne ñii bëgg nañ liggéey 3000 francs du ko mat seen loxo mais ñu ngi ci jaayante di liggéey pour am lu ñëw seen kër kon donc kon loolu état war na si mën a gën a jàpp quoi man daal foofu laa gisee nag jàpp si affaire yi mu yomb xam nga gars yi liggéey gars yi lu baax tey ku sañoon boo xëyee da ngay comme loo yóbbu sa kër tey li may def ni ñu bëri moom lañ xëy di ko def ñu xëy dañuy def wuti pare moom moom li am nii moom barke Seydina moom nii lépp a cher loolu laal dafa cher ñu wax affaire de guerre bi mais avant guerre bi affaire dafa cher nañu wax ne dëgg avant guerre bi ah guerre bi ñu wax naa moo war a affaire cher avant guerre bi affaire dafa métti nañu waxante dëgg kon du affaire du guerre bi guerre dafa ñëw koy gën a répercuter a yokk mais avant guerre dafa métti na woy fal mbir mi daal billaahi ok merci beaucoup jërëjëf kontaan naa ci yéen ah di leen ñaanal jàmm waaw kontaan naa ca kaw ca kanam parce que li ngeen def nii dafa nice quoi ñëw seet si ñu ñu wax leen li nga xamante ni mooy sunu métit mooy sunu naqar ngeen jàllale ko mu doon message kon loolu dañ leen si remercier di leen si ñaanal xam nga gudd fan ñaanal tamit télé bi yokk sa kaw ca kanam waaw ndam daal lañ leen ñaanal daa ngeen jëf ok bi nanga mu waaw nice ngeen rek am jàmm sant gu wér dafa mel ni instant bi nii li ngeen si soxla amagoo leen ko de waaw amaguñu ko nag ndax euh, clients yi ay jàmbaar lañ dëgg yàlla ndax seeni borom kër yi ñu ngi leen di jox dépense ñuy ñëw fii di jënd si ndawal mais kilo ndawal dafa xaw a seer parce que mu ngi jaay quatre mille trois mille huit cent te fii salaire yu bari diisul noonu ñun sénégalais yi da ngay ñëw jënd benn kilo ndawal ñu jaay la ko trois mille huit cent ay mille deux cent moo lay dese nga paas jóge aselem wala nga jóge feneen xam nga ne loolu doo mën a ñëw sax si marché bi loolu moo xaw a daaneel marché bi ginaar tamit seer na ay deux kilo deux cent ay cinq mille jëm kaw te xam nga korite gi gis nga nu mu demee boo boo ooree foog nga lekk lu baax te loolu tamit xam nga bokk na si loo xamante ne gën na sonal femmes yi ak borom kër yi borom góor yàlla yi daal ñun daal ñu ngi ñaan yàlla daal yàlla dimbali ñu suñu borom def jàmm lépp wàññeeku ñu nekkaat si jàmm parce que xam naa ne ku dund ren ba dewen di nga lekk di nga naan loolu moom yàllaa ko def. instant bi est ndawal am na. instant moom ndawal moom manqué na quoi parce que ñun ñii di jënd dañuy jënd ndawal nag jënd ndawalu xar yàlla xam ne ko mu perte yow mii di jaay sax da ngay mais ñu ngi sant daal ñu ngi sant rek parce que ndawal yi dafa cher ba pare amul surtout xar xar moom moo gën a jafe moom période bi ñu toll xamuñu nag lan la waaw ñuy sant rek xam naa problème yi Mali yeex yooyu parce que yu si bari côté yooyu lay jógee ak ay Niger yooyu. ëpp loolu lañu wax nee nañ problème Mali bi moo tax instant bi ndaw la manqué. waaw loolu la loolu la mais Macky Sall tamit mu ngi doon dox si affaire yooyu pour ñun jur gi ñun gën a am fii mais ñi yor seen xar yeew ko. xam nga liñ siy def moo tax ñun duñ mën a duñ mën a jënd seen xar parce que day cher xam nga xar moo yeew chaque jour di ko xonte ay 1000 francs 1500 ñuy fay la si yenn prix yi pour ka day xaw a waar daal. est que est-ce nii état bu jàppale woon ñi nga xamante ne ñoo nekk bi tey jii nii problème yëpp dina am. waaw loolu man man kii boobu mas naa ko def quoi projet boobu noonu waaw boobu ñu ngi ko def fii mbaaw loolu moom ñoom ñu ngi siy jóg pour Euh, jurkat yi doon leen jox investir leen di leen jox xaalis ñoom pour ñuy defar jur gi foofu man loolu moom man fekk naa maa ngi wax diplôme boobu loolu moom laa mën a seede quoi loo xamante ne moom def na ko loo xamante ne ministère de l'élevage man gis naa ko maa ngi doon maaw la woon. am nga si yaakaar naa affaire daal dina dox daal balaa faible. waaw waaw am naa si yaakaar yaakaar rek la nam nañu ne réew mu am jàmm rek ñu am yaakaar l'essentiel daal yàpp yu seer na seer na trop ngeen jëm si jàpp faal. merci beaucoup. ñu ngi a dee ay waay ñu ngi a dee Macky dimbali ñu. ñu ngi a dee Macky Sall wàññil dund gi sonn nañu barke yonent bi sonn nañu yàpp yokku na kilo 4000 francs ginaar yi yokku na 4000 francs ah yàpp xar yokku na kilo 7000 francs waa nit ñi fu ñu jëm Macky Sall doo ñu dimbali ubbi frontière bi xar yi dugg ak nag yi ñu a dee sonn nañ dañ leen di ñaan nag Macky Sall yow waxal. dañu lay ñaan ci jëmmi Seydina Mouhamed nga dimbali population bi waxoo ñu woon lii de ñun sonn nañ torop wax dëgg yàlla ñu lay ñaanal na nga am gudd fan ak wér ba bi élection yi di ñëw nga dem paas waaw ñu indi yeewi askan wi ñoo ko yor waa tey jii nag mën naa ne ñëw nañ seet si ñi nga xamante ne ñooy jaaykatu yàppa yi wax nañ li leen metti wax nañ li nga xamante ne ni moo waral euh, affaire yi metti waa te nag li daal indi loona moo tax la ñu dem ba beneen yoon incha allah maa ngi desee bu ñaaw bi beneen yoon fii si Rio Plus 1 seen émission Rio Plus Actu merci beaucoup.